benn affaire bu daan nekk ci sa bopp bi je sais pas quoi boo daan dugal di ko teg sa bopp bi xaw ma loolu lan la woon mais loolu. loolu oh. <laughs> loolu benn bopp King Kong la quoi. boppu King Kong. waaw boppu King Kong la loolu turki la woon. ok euh, moo waral ñu may woowee wax jooju ba léegi. waaw parce que xam nga ñun dañ sonn daal. ñu nit ku ñuul. Ah. dañ sonn dañ sonn sibiti Mm-hmm. waaw mais boo nekkul foofu nag doo ko mën a xam boo fay wut maanaam doo fa mën a doo ko mën a xam mm. boo jaar si wutkat am dafa neex waa amee nit ku xonk sax day taxaw nii dañuy yàpp ñu nit ku ñuul mais boo amee nit ku xonk léegi loo ko wax mu def ko mu def ko comprendre parce que tey ñun bu ñu am pour ñu am foofu dafa metti lu nekk ngay gis mm. racisme nii dafa bëri tout ça xam nga et que tey xam nga yow boo boo tuddee sa bopp golo kenn du la wooy golo mm-hmm. xam nga <laughs> waaw waaw booy tuddee sa bopp golo kenn du la yuuxu ko la. mais boo koy bañ rek da ngay sonn. parce que gis nañ ko fii ñu def ko ci ñu bëri. Mm-hmm. te king doon na loo xam ne king kong mooy bu mag bi. Mm-hmm. si si ñoom mu waral ma koy représenté si terrain bi. Mm-hmm. comprendre bi doo ma ñeme. waaw parce liggéey mooy fulla fulla laa si looy liggéey boo si defee fulla peut-être fi nga loolu la woon moo jundoon masque boobu nag doon ko sol su ma dugalee but mu defoon bës bu rëy dëkk Turquie bañ arbitre gi yëpp ne nag wax si ne léegi su ma ko solatee day may carton affaire yi noonu ñu ko xam nañ si sant seen bopp mhm. ma bàyyi quoi ma tëj ma ma arrêté ko loolu moo ko waraloon masque boobu quoi dëgg la alors